seri koytina kan sewondi kanjo ko laawi kan jelendi wonga toto kam bindi eɓe sisimo silaɓe ñaadi eɓe nendela koɗe naati kumoni fola jeekan sinondi ay wali aligata ñola gambia muyilaɓe kan islandi ay wali yankuba kolini lamolanni mbara waaye borom ngembul xonq la ndeysaan ak ngembulu ñuul waaye yaakaar naa ne it mooy loolu lu wér la combat bi gën a métti si combat si la bokk borom ngemb lu xonq li ndeysaan am na li nga xam mooy ngemb yaakaar na seen tur yi war nañ koo jot loolu dinañu dimbale tamit pour ñu xamal li ñi ñaar ñuy bëri ñooy kan waaye combat bi mucc si combat yi lan nag yaakaar nañ ko et eh, borom leer ndeysaan borom ngemb lu xonq li dugg na ko di ko doon enu waaye kooku bus na mu ko doon enu waaye demul mu ngi ko doon indi waaye demul dafa mel ni lim doon jaglu si loxoom bi jotut ko am na lim bëggoon a tubb waaye loolu daf ko jotut daf doon tubb pour am doole waaye yaakaar naa amul doole waaw desaan cabaxal bi dugg na mu ngi ko bëgg a indi waaye demul cabaxal bi dugg na waaye demul mu ngi ko mboot cabaxal bi dugg na waaye demul. ah war na ko ndomba wër na ko ndomba wër na ko ndomba war na ko ndomba <laughs> waaye combat bi métti na ndeysaan last combat la waaye ndeysaan métti na yow muy combat bu mujj si combat yi ah ndeysaan daaneel na ko borom ngemb lu li bim ko wéré ndomb nim ko waloon a def ndeysaan yëkëti ko ba ci kaw door mbokk yi dafa mel ni lii la ñuy waxtu meyoon waaye balaa ñoo tëj li nga xam ne mooy programme Leewtoo ñu andi leen xibaari tiis bi nga xam ne na fi kii ngeen di gis nii mooy momadou Max Diallo momadou Max Diallo nag génn na àdduna niki dimanche bii ñu génn ñu koy jaale bépp Gambien rawatina si ñi nga xam ne si la doon liggéey di national sport. council bi nga xam ne moo fi nekk bugg a aar bi roor rawatina li nga xam ne mooy football ak li nga xam ne mooy bëri ñu koy jaale Gambia government bi di ko jaale gars yi buru foot di ko jaale njaboot bi nga xam ne tamit moom la bàyyi si gannaaw mbokki comme saa su ne niñ koy waxee rek li nga xam ne mooy dee ñu ngee ñaan yàlla saa su nekk la yal na ñuy fekk si lu baax ba waral na ñu ngi ñaanal kii nga xam ne mooy du Max Jallow ñu xamee woon ko si Max fi mu dem yal na ko gënal fi mu jógee yal na suuf oyof si kowam àdduna moom nii la lu fi waaye munti am tamit lu fi waaye ti def tamit bés dina jeex te képp ku nekk si àdduna xam nga ne sooy jëm foofu nga xam ne mooy àllaaxira ñaari jikko rek ngay yóbbu bu baax bi ak bu bon bi ñuy ñaan yàlla nag bu bon bi yal na bum ñuy jege waaye ñuy góor góorgóorlu di fexe di def lu baax li bu ñu ne mag si yàlla nag ñu xam ko ku si bëggoon diineem ku buggoon réewam waaye ku bëggoon njaboot bi mu ngi bàyyi yaay bàyyi popp fii si àdduna ñu ngi leen di ñaanal ñoom yal na leen yàlla may gudd fan ñu ñaanal kii nga xam ne mooy seen doom ñu xamee woon ko si Momadou Max Diallo ñu nit waa Leewtoo ñu ngi koy jàlle di ko jàlle njaboot ji di ñaan yàlla yal na suuf oyof si kawam lii rek ay àdduna mbokk yi kon ñu ngi leen di tàggu fii di leen jox dig daje si beneen alxames jërë ngeen jëf. galgal na ko daanil na la buñ leen di isili alxamis bu nekk si GRTS dama ne ànd leen nag li ngeen di GRTS Madan, Madan,